jërëjëf Alassane Wade kon mbokk yi ñu daal di euh, sóobu ci xabaar yi ci njolloor gi gannaaw ba nga xamee ne ah, ca Thiès ca lañ koy daal di doore am ñooy ay candidats yoo xam ne waroon ci baccalauréat bi am nag yoo xam li metti na leen seen digganteeg daal lu ñu tey ci seen ay not daan ci jokkooleeg ak Babacar mu leeral na mbir yooyu ana lu ko sabab examen yi jëm ci wàllu bac technique bi ñu fanweeri fan lay doon euh, ci weeru août wi nga xam ne ci la ñu nekk ak benn euh, ci lycée de la Fosse yi ñu ngi ci daanaka ci ci xàll wu mujj wi wala boog mbartal mu mujj mi daan ci dikk léegi itam ci biir xabaar yi daan ci toftal itam li nga xam ne dafa aju ci wàllu lépp loo xam ne aju na ca Thiès euh, ca drame bi nga xam ne amoon na fa ji yi amoon ca Tiwaawoon ci biir biir nda indi na leen fii ci biir ndakaaru ngir def loolu nga xam ne moo di autopsie daan ci dikk léegi loolu tam ah, ci biir ah, xabaar yi daan ci toftal itam li aju rek ci wàllu faat yi ñi fay doomu aadama yi fi ñu ci jot a toll mu nekk mbir moo xam ne mi daal dafa ba xaw a bari loolu itam ak Adja Fatou Bari Covid 19 bi itam ci tawat ji ah, faamu yoolu ba yegg fa tey jii loolu daan ci dikk dikk ak docteur Mamadou Ndiaye toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Sud Maodo Faye ñu doore ko ca cees xabaar yi ak Babacar Ndaw am ay candidat ci bac loo xam ne daal fa ñu nekk ca cees ñoom ah, dañoo doon rek xëy dem daal sikk mu gaay yi ci bureau yi foofu le ndax daal dañoo téye seeni i note Babacar Ndaw élèves classe su terminal yu cours privé Lucie Leclerc bu Thiès ñu ngi si njoxare tax nag tey jii ñu xëy sikkimu ak seen ay waajur direction bi ne seen ay notub second semestre la ñu bëgg waaye seen ay livret yu baccalauréat Moussa Demba Baro yor seen kaddu. te nit ku liggéey ba fin du mois. am na droit waaw ah, am na droit laajte. parce que da xool selon sa papa rek mu war a andi dépense seen. te problème bi aski du Lucie Leclerc Thiès ak kese une semaine moo des ci bac bi. mooy gars yi seen livret yi remplir guñ ko. daanaka baccalauréat des ne ñoom seen waajur yi ah, fay nañu la leen waroon ah, soxna Awa Gueye si soxo ah, kenn la si waajurub ndong yi covid bi jàll ñu ñëw premier jour ñu ne il faut ñu fay trois mois sinon dañu dàq xale yi fii ma xëy suba teel suba teel ñëw indi ñaar fukki junni ak junni muy benn ñu fay ko xale yi jàng ñetti fan jàng tuuti jàng benn fan jàng genn wàll fan ñu ne profit fayuñu leen ñuy jaabante dëppi lor ñuy jaabante profit di ñëw xale yi di jàng tey xale yi dañu jàng bi kenn du ko jot amoo koo waxal amoo téléphone am amoo daraam du la suñu doom yi bu ñu jàngee tey duñu jàng moo ëmb njàngale mi nañu sarax ngir yàlla ak yonent bi jëmmi nabi Moustapha mu dimbali ñu suñu doom yi jot seen note mu professeur yi nekk ci condition jàng mi jeex. tax nag élèves yi tey jii ñu ngi tàllal loxo kilifa yi yor wàllu njàng bi nekk du guleet daara jii di Lucie Leclerc Thiès ñuy am problème yu ni mel daaw nemmeeku woon nañ ko si direction bu école Lucie direction bu institution Lucie Leclerc ñoom nag nanguñ si yey yàbbi jàpp nañ ne seen kilifa madame si la tudd mu ngi Dakar moom rek moo war a wax si situation bu ni mel Babacar Ndaw Thiès su defa Babacar am nga jaajëf ci wàllu examen yi baccalauréat bac technique bi fi nu toll nii jàpp nañ ko ci fanweeri fan ak benn ci weer wi nu ne lycée Maurice Delafosse ba nekk fële ca Gueule Tapée ndongo yi tàmbali nañ itam nekk ci mbartal mu mujj mi ñetti téeméeri candidat lañu ñu koy xëccoo jumtu euh, euh, lijaasa boobule Aïssatou Gueye ba. ab l'examen bac technique boo xamante ne benn semaine courte moo ci des laata mu yegg si loolee waral nag boo yegg ci biir sal de classe

di waajal. waaw fii moom instant ñëpp a confiance. ñuy waajal kay. at mi nag résultat bac yi ñu nar ko joxe rek par SMS loole nag tiital loolu ndaw ñi ñu dajal. déedéet non loolu loolu loolu avantage. lu avantage loolu avantage parce que am na am na am na kii élèves yoo xam ne amuñu portable genre yooyu noonu. ba pare SMS yi mën nañ si juum. envoyé élève ne ko am nga fekk amul. man baaxul ci man de. parce que wóorul daal. wóorul. Mhm. da ragal mu am ay. Euh, waaw ay erreur et fii ci lycée technique de la fosse daanaka centre la nar a doon 31 bii di ñëw ba tax na bépp matuwaay jël leen ko ngir mën a rek dalal élèves yi bu ñu sukkandikoo ci proviseur bu lycée technique de commerce Maurice de la Fosse di wuyoo ci turu Bolé Fall. dinañu am 300 mooy ñetti téeméeri. candidat góor ak jigéen yoo xam ne dinañ fi ñëw incha allah le 31 juillet pour def si examen léegi bu nu ñëwee euh, dina leen répartir ci fukki saal ak ñaar saal bu nekk dina am ñetti surveillance école bi kenn du fi dugg te kenn tegu la thermoflash d' abord su fekkee da nga war a jàll booy dugg rek nga jàll boo duggee rek di nga raxas say loxo boo raxasee say loxo ba pare ci lave-mains bi nga continuer dem classe soo demee sa numéro taabu daa fa fekk nga toog sa place. l'examen bac technique ñu koy xaar 31 août bi di ñëw fii nag ñu nar a yeggali jàng bi ba vendredi bi ngir mën a rek may élèves yi ñu mën a réviser bu baax. app l'examen boo xamante ne daanaka at mii lee nar na wute lool ak yeneen at yi li ko waral nag di mbas mii nga xamante ne mi ngi ci biir réew mi. benn waxtu moo dem ba fekkook luy tollook juróom-ñaari minute ca njëriñ pël ak tamit mbay mbay euh, ji ji amoon fële ca quartier Dabax ca Tiwaawoon ñetti néew yi wax nañu ne andi lañ leen fii ci biir ndakaaru njaboot googu nag doon naan daan janloog taskatu xabaar yi ngir indi ci ay leeral euh, gannaaw ba nga xamee ne tamit euh, tey jii gannaaw ba ñu dajee tamit ak kii di procureur ba nekk ca Tiwaawoon Cheikh Ahmed Tidiane Kane mu yoroon kaddu njaboot googule waxtaan ci ak Babacar wax ñu fii nga xam ni foofu la situation bi dossier bi toll parce que boobu ba léegi bi xale bi génnee àddina ba léegi waajur yi mbokk yi ñu ngi xaar pour man leen a denc xam nga nit moom euh, ab jullit bu génnee àddina rek dañuy bëgg jébal ko boromam le plus rapidement possible mais tey nag bi ñu ñëwee fii ci procureur xamal na ne daal mbir mi àgg na foo xam ni fi ñu toll nii daanaka waxam sax bareetu ci ndax mbir mi kilifaam gi nekk Thiès moom moo ko yore xëy na moom bëggoon na def déclaration wala lu ñuy demee ndax euh, kilifa gi nekk mbir mi ba enquête bi jeex donc daal yi ñu def seen liggéey bu ko defee bu ñu paree ci seen liggéey rek dinañ def vraiment rapidement dina signer kayit comme ça ñu mën a jot ci néew yi ba mën leen a denc incha allah jamono ji euh, ñu ngi fële hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh mais actuellement ni euh, directrice hôpital bi joxe na des instructions parce que nee waa Dakar war nañ leen jël si tey pour yóbbu leen pour ñu def autopsie bi waaw lettre bi ñu ngi koy wax mais lettre des parce que il faut ñu continuer enquête bi d'abord ba enquête bi jeex bu ko defee nag bu bàyyi woon lettre wala yooyu xam naa certainement dinañ ko jox euh, famille bi bu ko defee ñun tam ñu mën leen ko wax leen li nekk ci biir xam nga tey lañ leen di jële fi yóbbu leen Dakar xëy na fii ak suba ginnaaw suba moom daal nee na moom dina xar tànk tubeem actuellement nii mi ngi commencé di woow commissariat ak yooyu di pour que daal ñu diligente dossier bi ndax euh, ñu mën ko denc ci anam yi gën a gaaw daal euh, ni ko julli ci di def yooyu tamit ci faat yi dafay bari lool ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll maanaam xeetu mërt ni ko tubaab bi duppee euh, ci gone yi itam rawatina tam ak itam daal loolu tam nag na ak jaaxle euh, ci euh, ñu bari fii ñu toll ni sax ak waajur yi itam bu fekkente ne itam daal wax nañu ne lii moom kenn xamul lu muy firi daal am na ñeneen nit ñu njort na daal itam war nañoo gën a daal jox itam xoolaat bu baax a baax taxawaay itam jur yi aja faatu bari ay mettital yu ñuy gis ci biiri njaboot dem ba sax faatu di ci am ñu koy gis ci réew mi mu mel nii yile mettital dañ koy gis ci ay xale yu ndaw yoo xam ne yenn saa yi seen waajur yi ñoo leen koy teg yile jëf nag metti lool waajur bu jigéen bi man moom damay tiit ba pare soo meree bu topp sa xol nga soo meree mu topp sa xol ni ko da nga dem sa xel. nga yëg ci baat bi ne dafa mer soxna si am lu war a weesu ñeent fukki at mu ngi wax yenn waajur yi nan la ñu war a di doxalee bés boo xamante ne mer dikkal na leen. xale dina def loo xamante ne da nga naan kii su ma ko defee su boobaa nag yow boo demee sa xel rek mun naa am loolu bañ na laa bala dal dangay ngay nga dal soo paree nga woo ko tiw mu ne ngaam nga ne ko nangam ak nangam ak nangam nga yedd wax ak moom. beneen waajur itam bu mer lool moo di ki nga xam ne waajur bu góor la moom sax dafa jàpp ne lenn mënul justifier waajur yi ñu gis ne dañoo faat seeni doom ci ay fan dong fi ci réew mi. da ngay nekk nit nit dafa am looy rus wala am looy jom yaa def fee yoo xam si man mënu ma considérer ni euh, ki ko def nit la. waaye benn laaj sampu moo di ne lan moo war a tax ñuy gis jafe-jafe yu bëri ci kër yi ñaari waajur yi di ci joxe seen xalaat. yar gi gaa des na d'accord na parce que aussi na mooy dox. na ci boppam mooy dox c'est partout foo mën dem loolu la y a des yoo am tey amul woon avant. parce que nit ñi léegi ñoo wérul amul mag amul ndaw nit ñi ñoo wérul. faatu gi di gën di bëri ci réew mi ci diiru benn ay bés ñett ci ay xale yoo xam ne gis nañ ne dañ leen faat ñu daal di ko nemmeeku ci réew mi yépp na ak seen i ay waajur daal di leen ko teg te sax xale yooyu ay tuut tànk lañu woon mel nii benn laaj buy samp moo di ne lan moo dal waa Sénégal yaa faatu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci naka la ñuy yare gone yi itam ban mën a wekk tamit kilifa yi rawatina ak jur yi fokk tamit loolu mu am daal ay jaarelin yu ñu koy jaarale ak itam mm, fexe tam ba mbir yi nekk lu joyanteku ba ak ak ak ak war ma mën caa mën a am kii di Marème Seck ko ci ak Maam Jaara da Silva question bi xaw na yaatu tontu bi dina gudd lool waaye mën naa ko gàttal ci euh, wax ci qualité yoo xamante ni parents yi waajur yi la ñu war am sooy yar xale yi foog nga am patience ndaxte xale yi soo leen waxee da benn yoon foog nga répété répété te loolu patience lay laaj beneen qualité bi mooy tey maanaam euh, bañ a nekk di gaaw a mer di a dóor di gaaw a euh, saaga aussi ñetteel bi tam aussi mooy am capacité toog gëstu xam ni xëy na li ñu def nii tey suñu doom wala dañ ko yuuxu wala dañ ko dóor loolu jaaduwul ba pare ñu essayer corriger loolu ba pare def neneen. alors ñu gis ne parent yi nga xamante ne dañuy dóor seeni doom bu ñu leen di yar. dañuy dem mhm. ba ëppal des fois mu indi ay accident lan mooy faral di provoquer loolu. Ah, li ñu war a njëkk jàpp mooy que dóor xale dañ ko war a bàyyi complètement ndaxte xale kenn waru ko dóor kenn waru ko kenn warul am benn geste violent ci moom waruñu ko dóor waruñu ko saaga ni xale pour que mu mu jàpp dara wala suñ ko laajee dara pour mu def ko il faut que ñu dóor ko su fekkente ni dañ ko laaj benn yoon te defu ko alors que yar dafa laaj ñuy répété di répété di répété waat donc déjà benn parent dafa war a boppam muy dóor doomam ensuite léegi li tax nag xel ci yenn waajur yi dem ba ëppal bay gaañ seen doom ba sax di leen rey loolu c'est que ñoom ci seen bopp dañu dañuy mer mer boo xamante ni dafa jéggi dayoo ba dañuy dem di këpp mer boobu ci seen kaw doom te loolu normalul parent bu gis ni moom dafa mer benn mer boo xamante ni vraiment euh, doomam da defu ko dara mer boobu xëy na feneen la ko jëlee eh bien dafa war a moom essayer calmer boppam bañ a nekk di venger wu ci kaw ay doomam et aussi su fekkente ni mënul ba calmer boppam dimbali ci loolu mën na nekk benn psychologue wala kenn koo xamante ni ko mën a dëfal mais bañ a nekk di këpp maanaam ci kaw doomam. Euh, ca Mbuur bu ñu fa demee alkaati yi jàpp nañ fa ay nit ñu bari nag kenn ku ci nekk ak lan la jàppee am nañ ci ñoo xam ne ñii kankurang ba sax jàpp nañ ko ndax dañu wax ne amuñu woon euh, këyitu war a mën a génn ngir def seen aada yooyu li am na ñeneen nit ñoom jàpp nañu leen Babacar Sow. cérémonie yi nga xam ne dañuy faral di organiser ay kankurang fii si diwaanu Mbuur bi ci guddi daal dinañu teg loxo ñetti nit yoo xam ni yi police moo def li ni mel ci diggante quartier jàmm gën ak liberté lan warlu ko lu dul amuñu woon autorisation ngir def li ni mel waaye itam yeneen délit ñëw tegu ci ndaxte ñoom dañ leen fekk ñu yore ay ngànnaay waaye itam trouble à l'ordre public ñuy fàttali am na yeneen kankurang yoo xam ni police daf leen a dàqee waaye mujj leen a jot dañoo rëcce diggante quartier moo 11 novembre tefes ak Médine ginnaaw bu nga xamee ni dàq nañ leen ba sonn ay teg loxo yoo xam ni opération de police bu nga xamee ni waa waaye takk der bu Mbuur ñoo ko doon def démb ci guddi juróom-ñaar fukki élément ak juróom yoo xam ni ci GMI la ñu bokk wàcc ci terrain bi 10 heures ci guddi ba fajar loolu nag tax na ba communauté Mandeng bi nga xamee ni ñooy faral di amal ay kankurang daal di génne benn communiqué fii ci Mbuur di euh, maanaam communauté boo xam ne bii nee nañ daal raxas nañ ci seen loxo boobu set wecc euh, ci communiqué boobu communauté Mandeng nee jëlagul benn ndogal ngir tàmbali li nga xamee ni moo activité septembre Mandeng yi nga xamee ni ci lañ daan amal encourant yi tàmbali ko lenn waralu ko lu dul coronavirus Babacar Sow dañ ko jokkoog yéen ci Mbour pour Sud FM Babacar yi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu mbas mi ci la ñuy daal di dem ñaar ñu faatu ñeent fukk ak ñett ñu yees ñu gàddu doomu jàngoro ji fukk ak ñeent yooyu ci wàllante bi ci askan wi ñett fii ci biir Ndakaaru docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñett téeméer ak fukk ak juróom-benn test yi ñu def ñeent fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ñu tuddee cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro yi am nañ ci. fukk ak ñeenti cas li ñu tuddee communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox yi may waaj a lim Dakar Plateau am na ci ñaar Kolda am ci ñaar Tambacounda ñaar Thiès ñaar Ziguinchor ñaar Géejawaay am ci benn Kédougou am ci benn Xombol am benn ak Tivaouane am ci benn téeméer ak ñaar fukk si malade yu ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñett ñu nga ci réanimation ñaari malade ñàkk seen bakkan bésu démb altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weer ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom benn mooy ñi jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñetti ak juróom téeméer ak fukk ak juróom wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale di ñaanal ñoo ñu génn yàlla xare leen àjjana malaat yi des ci hôpital yi yàlla may leen tan ba ñu génne ak jàmm lii tolloog uh, ci Covid bi ba léegi ci nit la ñuy daal di dem fële ca Gorée am na fa kenn koo xam ne ki wopp ji alawtiku na ko uh, dafa amoon nag fu mu tukki woon ba ñëwaat fa Augustin Senghor mi maire bi foofu ne daal jël nañ matuwaay yu takku ñu jël ko ñu déglu ko ci micro Habs Elimane woon. waaw sama réaction moom sant yàlla la parce que bi ñuy toog euh, Covid bi dugg fi mois de mars nekk fi diiru juróom benni weer dugg fu nekk ci gox-goxaan yi ci Dakar ak ci Sénégal yegg siwul dañ doon sant yàlla donc bu yàlla defee mu am kaa bu ñëw dañ koy nangu sant ci yàlla waaye tamit gën a fagaru parce que Gorée ci njëlbeen la ñu jëloon ay matukaay yu takku pour euh, bañ virus bi yegg si fi te amaana mënoon nañ ne respecté woon nañ ko tenir woon nañu trajet ut euh, Covid bi parce que dugg fi woon ba léegi yàlla moo def nag euh, suñu benn doom boo xam ne liggéeyam moo ko yóbbu woon na ci beneen gox fii ci Sénégal mu dellu si indaale ko loolu fii lañ ko fekk ñëpp xam nañu ne virus bi day dox donc li ñuy def rek léegi mooy bañ a tiit baisser les bras mais gën a fagaru xëj na ñu ngi ko doon def ku ñëwoon gore gis ne gan yi duggatuñu fi woon touriste ñëwatu fi woon même goréen boo bëggoon ñëw seet sa mbokk moom doo ko mën ñi fi doon ñëw ñëpp par dérogation rek nga doon mën nekk loolu dinañ ko gën a eesal parce que loolu dafa am solo ñu gën ko maintenir même bi ñu amul cas ñu ngi ko doon appliqué léegi la war a gën mët ci biir loolu tamit euh, ak euh, suñu naataango yi waa liaison maritime Dakar Gorée nañu gën a dëgëral nga xam ne mooy contrôle bi accès Gorée ak euh, mesure barrière yi nga xam ne ñëpp ñuy jël ci salu bi nañ ko respecté bu weesoo loolu tam ci biir Gorée amaana amaguñu woon cas nit yi mënoon nañ di dox duñu sol masque wala a respecté yenn léegi ak population bi ndimbalu force de ñu veillé daal que ñëpp jël seen matukaay parce que li am solo tey mooy tontu cas boobu mooy lan fexe mu yem si boobu cas kese wala sax même bu fekkee ne xëj na am na ay contact yu mu jot a wàllu gore mu ñem si ñooñu comme ñu li ñuy wax rek ñu coupé li nga xam ne mooy euh, chaîne de contamination bi keneen bañ a loru et surtout ñu gën a jublu tam ci suñu mag yi ak ñi nga xam ne waruñu parce que ñooñu tamit euh, ñu jar a bàyyi xel lañu li am solo daal mooy euh, fexe continuer sensibilisation bi jël bi déglu conseil yi nga xam ne cellule opérationnelle pratiquement suñu population yi pour que mbas mi bañ fi gën a sore fii ci Gorée. Euh, kooku di euh, Augustin Senghor muy maire ba nekk fële ca Gorée li wàllu aju ci wàllu ANACIM mu jëm ci wàllu taw beeg euh, fi ñu ci toll xëy na daal ni nga xam ni seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobu la xey na ci penku réew mi kii di ingénieur bi nga xam ne day wax ci wàllu fànn boobu la di Alpha Mamadou Malado Diallo ne daal xëy na feeg weer wii di jeex ci weer ut daal taw yi ak itam ña jaww ji ni muy tëddee dana daal ñu déglu ko ci micro Habsa Elimane woon. ngoon dem si guddi si ñu ngi prévoir ay taw si bët saalum réew mi as ah, si penku réew mi penku réew mi nag taw yi nag ñu ngi koy xaarandi si guddi si wante taw yi ñuy xaar eh, si bët saalum réew mi moom ñu ngi koy xaar si côté ngoon si taw yooyu nag Mali lay jóge comme que dafa am lu ñuy wax ay perturbation bu nekk si zone Mali bi léegi taw boobu dina wàlli dugg si biir dëkk bi mercredi bi moom nañ am taw si dëkk yëpp si bët saalum réew mi dem si digg mi ba si eh, bët gànnaar réew moom ñu ngi xaarandi ay taw yi nag surtout si bët eh, gànnaar réew mi gox goxaan yi nekk wetu Podor bi dem Saint-Louis foofu ñu ngi fay xaarandi ay taw yu taw yooyu nag dinañ wàlli tamit dem si si sow réew mi journée jeudi bi foofu sow réew bi moom moom lay gën a arrosé ñu ngi fay xaarandi ay taw notamment si zone Dakar yi wàcc Ziguinchor dem ba si zone euh, Ndar bi ak centre ouest bi léegi si wàllum euh, euh, prévision bi ba fii ba si si weer bi fu muy jeexee foofu ñu ngi xaarandi ay taw tamit parce que atmosphère bi ñu ñu gis si simulation yi ñu am atmosphère bi dafa humide am nañ yaakaar nañ am taw ba si fin du mois bi am na tamit ay prévision saisonnières yi ñu defoon nga xamante day xool euh, nawet bi nan lay mel gis nañ ni nawet bu xaw a tooy la am taw bu bëri taw yooyu nag euh, si bët saalum réew mi lañ koy gën a nemmeeku rawatina si gox-goxaan yi nekk si wetu tefes bi suñu jëlee Casamance bi Cap Skirring Ziguinchor euh, yéeg tuuti dem si côté centre ouest bi Kaolack yooyu foofu moom ñu ngi fay xaarandi ay ay taw yu bëri lool la prévision saisonnière yi joxe fii ba fin septembre bi mais si li jot a gis mooy que taw yi nañ continuer fii ba fin du mois bi fii bi endroit parce que mënuñu jox zone bi ñu ne zone bi mooy gën taw ko zone bële loolu sax par endroit lay doon c'est-à-dire que taw yi nañ nañ am ay taw taw yu ànd ak dënn léegi point de vue ki bi bon toujours xam nga taw moom day am alternance euh, su tawee mu toog mu am naaj te naaj moom baax na si ngajax surtout soo amee taw ak naaj moom moom dina baax si euh, ngajax bi nu muy màggee Euh, ci campagne bi te mbay euh, taw bi muy taw itam léeg itam euh, naaj wi tàng taw bi am baax bokk na ci li nga xam ne baax lool ci gàncax gi ak itam rek daal ci melokaanu li nga xam ni moo di li jot a sax CNCR ñoom Sidi Ba noonu loolu la ñu seen ne lool loolu mën na dal xel ñu déglu moom Sidi Ba ci boppam ci micro ab Souleymane woon. ñu ngi sant yàlla bu baax di yaakaar ci nawet bi mu tëdd ak nu mu bindoo mu tàmbalee taw ak léegi amul benn jafe-jafe bu ñu et que ndox maa ngi wàcc kam comme ni ko bëggee ñun béykat buy taw guddi wala buy taw takkusaan di naaj ba cëkk ab cant lañ koy def parce que dina tax ñu mën a béy li ñu béy euh, naaj bi maanaam mën a faagaagal ñax mi et que itam ci la gàncax bi gën di am doole ci la gàncax bi di gën di développé et di sant bu baax yàlla. di fàttali mbokk yi rek nawet euh, garab bu tóortóor la tant amul doom bay meññ euh, munoo ci am loo avancé et jàpp nañu rek ci fu mu toll euh, bépp xeetu gàncax bu ñu ji taw rek am nañ ci yaakaar dugub jaa ngi ceeb yi itam béy nañ ko ren lu am solo ceeb itam mu ngi dox ñambi itam am nañ ko def. et que mboq mi tam am na loo xam ne commencé nañ ko indi ci marché bi mu ngi ñor et di yaakaar daal di yaakaar daal euh, di ñu yàlla may mu taw weeru septembre bu dugg ci weeru octobre fukki fan yu njëkk yi mun nañu yaakaar am production bu tane daal et di gërëm di sant sama mbokk béykat yi effort yi ñu def ngir wàññi ju dencal ko effort yi ñu def. ngir jënd engrais malgré nguur gi itam am na lu ñu defal waaye ñu itam te suñ ci gànnaaw jënd nañu jiw jënd nañu engrais di baaxal tool yi def ko ci di am yaakaar nag nañu jàppale may nañu li ñu sumb sotti ko njëg bu dëpp suñu coono njëg boo xam nañ ci suñu bopp xeetu meññeef fi ñu béy ci taw bi kon euh, Odile ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo fay bu FC Barcelone maa ngi leen nuyu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak lu jëm ci euh, association nationale de la presse sportive euh, ren li nga xamante ne moom mooy galaa bi ñu tàmm amal at bu jot ren nag du am ndax euh, li ko waral moom mooy lii di coronavirus bi ren nag ñu waroon a féete li nga xamante ne moom mooy juróom fukkeelu atu lii di ANPS waaye nee nañu donte sax galaa bi du am waaye am na benn programme bu bu yaatu boo xamante teg nañ ko ngir rek daal di bokk ci xeex euh, bile euh, mbas ki xamle lu ni mel mooy njiital association nationale de la presse sportive di Abdoulaye Thiam ñu teewlu ko. ren bi ñu nekkoon ci ay préparatifs yu am solo lool lool parce que association bi mu ngi waroon am juróom fukki at 1970 lañ ko sosoon mu nekkoon suñu ay kilifa suñu ay mag suñu ay enseignants suñu ay employeurs sax entre guillemets ñoo ñëpp bokkoon nañ ci ñi nga xam ne xalaatoon nañu mettre en place lu ñuy woowee association nationale de structure bu nekk rek doyen des associations fii ci Sénégal mais yàlla nag euh, moom mooy dogal bu ñu demee ba toog ak suñu ay yenn partenaires yi xalaat sax jàppoon nañ sax date moo nekkoon lu le 12 décembre 2020 boobu lañ bëggoon def soirée bi ànd ak ki nga xam ne moom euh, nekk na aussi artiste interplanétaire comme ni ko animateurs yi di ko woowee Youssou Ndour ñu feete ko convoqué sous régions bi yëpp convoqué suñu président AIPS monde Gianni Infantino convoqué président AIPS Afrique di doomu Nigéria malheureusement nag ak Covid bi soo gisee situation bi am si mu àdduna bi yëpp ah, tax na nag ñu jël décision naan dañ ko reporté ba deux mille vingt et un incha allahu rabi bu ci yàlla àndee. Mhm. mbas mi moom moo tax gala bi ren du am euh, yéen ba xam ndax am na ay activités yoo xam ne yéen a koy def ngir xeex euh, feebar bi du coronavirus. président de la république du tànni sàmmi kaddu laaj ko doomu sénégalais yi képp ko xam ne lu xam jot na ginnaaw wala beneen association boo xam ne war na mën a jàppale Sénégal pour ñu xeex ñu nekk ci résilience bi xeex mbas mi association bi bokkoon na si ñu njëkkoon taxaw yëkkati toll un million dama yóbbul ko suñu ministre des sports moom tamit mu jël ko jébbal ko ki nga xam ne moom mooy naataango am di Abdoulaye Daouda Diallo loolu moo nekkoon première participation deuxième yeneen activités yi ñu doon faral di def nag bëgguñu woon aussi toog rek te dootuñu waxati ay sport lu moo tax nañu créé woon lu ñuy woowee club de la presse ñu si invité ay kàngam mais li si mujj nag mooy depuis bi ñu jëlee décision dañuy reporter li nga xam ne moom mooy euh, gala bi dañ ne nag léegi dañuy xool si suñu compte ñu xool suñu suñu ay yeneen partenaire naka la ñu mun a def pour rassembler ay gel hydroalcoolique rassembler ay masques dem distribuer ko fii nii ci rédaction sportive yi nekk fii ci Ndakaaru waaye duñu yem ci Ndakaaru rek rek parce que ANPS dafa nekk association nationale ce n'est pas association régionale dañuy dem fépp foo xam ne antenne régionale am na fa ñu fexe ba jox leen euh, li nga xam ne mun nañ leen woowee lii buñ ko téye mu nekkoon kàddu yi Ablaye Thiam di euh, njiital kuréel gi ëmb taskatu xabaar yi yëngu ci wàllum tàggat yaram kon ren ji li nga xamante ne moom mooy gala ANPS bi du am ni kii dañ ko daal di puus ba euh, déwén incha allah euh, ñu dem nag ba fa li nga xamante ne moom mooy olympique bu Marseille am na ñetti nit yoo xamante ne ñu ngi laam-laamee ni dañoo amee li nga xamante ne moom mooy coronavirus ñoom sax jongante wuñu woon jongante bu njëkk jëm ci championnat bi ñu waroon ko amal semaine bi ñu weesu seen diggante ak Saint-Étienne euh, li ko waxal euh, moom mooy euh, juróomi nit ñoo xamante ne am nañu lii di wopp bi di coronavirus olympique bu Marseille nag jàpp leen ni ñetti nit yoo xamante ne gis nañu fu mu ne nii ñu ngi lam-laame seen wér-gu-yaram ne dañoo amee lii di mbas mi ñu fàttali rek ni olympique bu Marseille ni ki dimanche gi ñu dëgmal nag dina laale ak Brest ngir rek lu jëm ci ñaareelu journée championnat national bi saison 2020 2021 Ronaldinho euh, Maodo Faye daal di nañ ko libéré moom star euh, brésilienne bi nga xamante ne moom mooy Ronaldinho euh, dañ ko jàppoon foofee ca Paraguay juróomi weer mu def ko fa gannaaw nag ba ñu gisee ay faux document officiels maanaam ay ñoom ñoom foo passeport ak yooyu ne moom mu ngi koy yore moo taxoon nag ñu téye ko foofee ca Paraguay diiru juróomi weer kon ni démb ci lënd gi lañ ko. ko daal di libéré naka noonu magam ji nga xamante ne mooy Roberto Romero Romé euh, Roberto Morera nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp la ñu booleendoo euh, jàpp ci euh, loolu le boobu boobule mbiix jërëjëf kon nag ñaar fukki minutes ak juróom-ñaar moo feggu ci benn waxtu ñu dem ci yëglekaay yeeg ajaratu ndey Marème Ndiaye.